jërëjëf euh, nga ne seen TV ah yéen seen patron candidat mbaadu moo la yebal ci question yi en tant que journaliste mais moom candidat la Bougane waaw baax na mais na nga question bi euh, première question bi nga Euh, dara kenn tënkuma man ben bour la am moy yalla, awma ñaar awma ñett ben la am ci bobu la placer l'entièreté de ma confiance li ma ko dénk ci sama confiance amul lu dess lu may dénk keneen donc ken tënkum kenn moomu benn la am subhanahu wa taala te dafa am lu mu wax lan la waxati wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu nee na celui qui place l'entièreté de sa confiance en Allah Allah lui suffit jarul boole dara maintenant nga ne ndax silence su Macky bi ça me met mal à l'aise dama bokk ci ñi ko ko digal xanaa leer na ko ko digal digaloon defu ko bi lii bi Latif Coulibaly bindee livre Latif Coulibaly yéen a koy fàttaliku bi mu bindee livre attaqué Ablaye Wade attaqué Karim ne ay satch lañu et cetera man attaqué wu ñu ne man m'a bind livre bi puisque dama bëgg jël place su Ablaye wad et cetera Ablaye wad du joggé ñëw ne ma livre bi way qu'est-ce qui se passe Latif Koulibaly nous attaque toi il t'épargne etc. Mais comme mais il m'épargne puisqu'il n'a rien à dire contre moi moi j'ai rien fait hein. <laughs> Moi, je j'ai rien fait. Moi, je ne fais jamais quelque chose d'illégal. Et la première exigence que j'ai de mes collaborateurs quand je m'installe à une station de responsabilité, c'est de leur dire, même si je vous instruis de faire quelque chose d'illégal, refusez. Je ne fais jamais rien d'illégal, en tout cas en conscience. Donc, silence bi dérangé vous parce que dama ko y yow yaay chef d'état est-ce que xam ngeen lan un chef de l'état non je crois qu'au Sénégal on s'amuse on ne sait pas ce que c'est le chef de l'état doit définir la politique de la nation c'est-à-dire mo len di wax yéen ñëpp li moy defar loi et règlement jox ko majorité assemblée nationale ñu voteel ko alali rewmi moko wara sam jeun yi nek ci géej gi ñun ñëpp ko bok mais ku mu joxul licence de pêche do fa napp rap yi ci àll bi ku mu joxul permis de chasse do ci reub garab yi ci bir àll bi ku mu joxul permis de coupe bon daggee garab eaux et forêt jàpp la suuf si seen kër yi ngeen am bu nek ay titre foncier bu ko soxla day def décret d'utilité publique nangu ko ci lu dagan bu ngeen liggéeyee sen alal ba paré moy seet lamu mu dag comme impôt dougal ci caissam mu ngi toll ren ci plus de 6000 milliards de francs CFA par an ba nuppi li mu leen wax ku ko ci jëfewul moo yore kàttanu teg la daan bu ko neex police armée gendarmerie tribunal kaso c'est-à-dire man sama costume bi bu ko neexul bu ma génnee fii wax fi lu ko neexul mën naa woo alkaati bi nekk fii commissariat ne ko na ma convoqué 48 heures du ngeen ma gis mën na maa yóbbu rek teg ma ci benn siis ne ma toogal fii dafa am lu ñuy seet dafa am lu ñu wax vérification d'identité ndax yow la puisque gars yi dañoo doy waar ndax Idrissa nga wala doo Idrissa maanaam waxi tappale mais am na sañ-sañ bi moo tax Ousmane Sonko dafa da dafa dafa dafa dafa juum bi ma ko déggee mu wax ne ziar euh, testament euh, euh, le président de la république c'est du gatsa gatsa il va me tuer ou je vais le tuer mais si le président de la république veut le tuer il passe pas la nuit il passe pas la nuit et lui, il n'a pas les forces pour faire ce qu'il dit. Mais Maki a les forces en toute légalité. La preuve, lan la waa bib def Chopet yóbbu dara ci mënul bon donc erreur le loolu man mi xam nga numa daan def man njombor ton la njombor njombor bu ndaw damay gars dañuy ànd ak man way idi guerrier bu ma egsee ba ci barrière u policier yu njëkk yi ma napp leen ah li n'a droit damay jàll manifester et bu ma rombee ñooñu waa bip ñëw xàmmee naa leen ñoom waa bip ñooy ñooy ñu garaaw ak seen affaire yooyu ma xol len xolat len ne chef bi yow lo wax mu ne ma ngay yam ma ne ko c'est pas normal ma ah, mais ngi dem mais lolu moy jàmm après nga def sa defal ndànk question bi chef après nga def nga def sa affaire ma ne ko ma ne ko ma ne ma ne ma ne dem di def tourner tournée nemmeeku tour bii muy def tournée nemmeeku tour bii muy def maa ko njëkk a def ba ma eggee ba Kaolack war a dem fanaan kër Serigne Moustapha Bassirou alkaati yi foofu la ñu baare ñu nekk fay négocier affaire bi xumb lool gauche yi yëngatu way président président gars yi filmé waa yow loolu nga ci am bu ko romb boo rombe rombee dañ lay làpp te làpp baaxul ci kilifa baaxul ci kilifa xam nga euh, mon grand frère Moustapha Niass ba léegi photo boobu mu gàddoo xeer topp moo ko puisque pour sénégalais loolu du cëram man élection bi gën a bon bi ma def mooy 2012 wax naa ni 88 la première fois directeur de campagne électorale de l'histoire du Sénégal 88 2000 je suis directeur de campagne 88 ba 2000 suis directeur de campagne 2000 ma gagné avec la marche bleue Donna candidat Nyatio. Nyar ñaar 2007 à 2019 suis le deuxième Je suis le premier, premier nous le maki nak nee d'accord d' mais batay même bu sàccee c'est parce que da meuna a sàcc mais bu ma amoon mbooloo mu teye loxom ba du meuna a sàcc du sàcc donc damay nangou ne gañe na ma batay mom la wax ñom eh, Sonko Madické ak isa sal bi ma leen sama kër après les élections de 2019 mané ni contentieux ni violence jaruko élection mom bu le bureau de vote rombé paré nga waaw léegi far Farba Ngom mu am euh, possibilité sama représentant ba nekk Agnam mu jox ko cent mille ne ko yow bu ñuy wàññi buum la fi fekk kooka jël cent mille yi dem yendu këram waaw léegi au lieu mu am euh, cinq cent voix mu yokk ca quatre vingt voix wala soixante-dix ñu ne taux de participation proche de 94... mais qu'est-ce ko c'est parce que amuñu taxawaay mais defu Thiès defu Dakar ëpp a deug deug yi ëpp la koy def mais Ce c'est pas juste mais bon nous ci dara donc nous ñu ci ño xamni def d'ailleurs seen patron wax na leen ko Ousmane Sonko nee na leen euh, euh, seen poste dof yi ngeen di def di wax yenn wax yi nga xam ni seenu jàpp day yomb na ngeen ko ba mais ay xale lañu ay 15 ans nekk Facebook defe ni kenn gisu la kenn déggu la xanaa xamoo ni Facebook boo ci duggee boo waxee buum ngay tax ngay wax ñeneen ñi da ko di ko jot. buum googa la alkaati yi di topp ba egg si fekk la fi nga toog dafa am buum gisoo buum gi mais buum gaa ngi fi loolu mooy wifi man maa indi internet Sénégal donc bu ngeen amee réseau xam leen ni maa ko bu ngeen lekkee ceeb riz parfumé Idrissa

mais il y a deux pouvoirs Il y a le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire Le pouvoir judiciaire le pouvoir politique le pouvoir politique a la capacité d'effacer tout ce qu'établit le pouvoir judiciaire à travers deux mécanismes notamment, le mécanisme de la grâce présidentielle et le mécanisme de l'amnistie. Mais man si amnistie trop. Puisqu'on n'amnistie pas un individu, on amnistie des faits. C'est-à-dire que si on amnistie amnistier Karim Wade et Khalifa Khalifa Sall dañuy amnistier alalu Sénégal détournement de deniers public. keneen koo xam ni def na ko te jàppaguñ ko wala gëstooguñ ko day rëcc faut ngeen comprendre c'est-à-dire kii amnistie sax mën na cee laxasaale yeneen yu ko ñor moom te egseegul wala xamaguñ ko pour fóotaale ko moo tax man d'accorduma ci amnistie Nous sommes graciés, nous nañu réhabiliter à travers la réforme du code électoral mais nous euh, topp la ba gis xaalis bi tank bi famune koku benen affaire la tu es un voleur c'est tout tu dois être condamné puisque tu as volé l'argent du Sénégal donc le pouvoir politique peut effacer ce que fait le pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir politique n'a pas le droit de s'immiscer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, vous juge bi ou dossier à ah, président l'en règlement, la ko ay gendarme à policier à qui soldat pour que quelqu'un ne bundu khatal ci liguey c'est-à-dire prêter la puissance publique au pouvoir judiciaire pour que le pouvoir judiciaire accomplisse sa mission sans pression ni entrave et que nous wo prêter la puissance publique ...nous jëli le indi par force man 21 mars 16 mars du am du am puisque ci fajar ji ci lay Ousmane Sonko au tribunal te ña koy jëli du leen mën a te kenn du la puissance publique elle est là pour ça elle est là pour ça maintenant elle doit être entre les mains d'un vrai démocrate qu'on xamni du ci djublu lor nit ñi da ci djublu ar nit ñi puisque ki ci djublu lor nit ñi mom ñaanal ko pour mu jot ci mo diw ay neefare ci wurus ñoo donc c'est ça bi ma demee waxtaan ak Ablaye Wade ne ko Colin nee na boo nangoo waxtaan di nga génn boo nanguwula waxtaan ci kaso bi ngay dee mu ne ma moo la wax loolu ma ne ko waaw dafa bëggoon dafa ma buggoon recruter ma ne ko man bu bëggee recruter ma daf lay recruter yow puisque sama diggante ak Ablaye Wade Badara Niang moo ci dox Badara Niang mooy sama kilifa moo jël kilifteef gi jox ko Ablaye Wade looloo ma booleeg Ablaye Wade muy Grand Thiès kër Badara j'avais 14 ans 15 ans non lañ xamante donc ci waxtaan bi jóge ci juboo boobu puisque Ablaye Wade mu mujj na nangu ne ma loo ci xalaat ma ko man maa doon directeur de campagne nga nekk président moom la soxla mais boo nekkee ci kaso bi doo doon président donc sama xalaat mooy nga d'accord génn waxtaan mu ne ma d'accord madame dem wax ko Colin foofu la euh, discussion yi commencé après 88 euh, yéen a ngi fàttaliku bi Ablaye Wade génnee Popenguine nous avons discuté de tout avec un grand thé.

le code électoral consensuel bi nga xam Abdou Diouf daf ne woon ci changer virgule mais mujj ne ko changer après code boobu moo indi limitation du nombre de mandats Keba Mbaye ko fi indi après la ko Abdou Diouf soppi Ablaye indi indiwaat ko

après ma waxtaan ak ñoom Landing Savané ñoom lii ak ñooñu pour ñu defar CA 2000 ginnaaw bi ñu dem waxtaan ak man ak Bathily ñoo àndoon mu ngi fii di ma dégg léegi mu ngi représentant Nations Unies man ak moom ñoo àndoon dem convaincre Moustapha Niass ak Djiboka pour ñu ñëw ñu defar FAL noonu la demee donc Ablaye Wade

on va inscrire dans le marbre de la Constitution l'alternance démocratique à un rythme régulier n'excédant pas deux mandats de cinq ans, c'est-à-dire dix ans. Moutek Chidé, euh, le micro ne, ne fonctionne pas c'est les piles ça c'est pas normal alors mu avons ci euh, euh, beneen point qui est très important, Si mooy bu un am groupe parlementaire ci élection législative PSI, yi dañuy jënd député comme ça pour tas groupe donc euh, l'IPDS PDS voté contre Mimi Touré récemment il faut le dire puisque PDS a doon 18 députés il yi a 9 yi comme ça n'avons pas am groupe parlementaire donc ñaar le le de Safara. mais mané ton micro ça ne va pas. donc donc ñaar yooyu la def ci constitution 2001 Ablaye Wade ne mais nag alternance mën naa am ci diggante ñaari projet politique yuy wujjante wante mën naa am ci biir projet politique entre ay nit comme PS yi a nañ fi 40 ans ñun libéraux yi nañ fi 50 ans mu ne moom Ablaye day def 2000 ba 2007 muy 7 ans loolu mënu ko changer mu def 2007 2012 5 ans man Idrissa ma jël def 2012 2022 muy 2 fois 5 ans di 10 ans 2022 manit ma bàyyi loolu indi. Il qu'il va prendre sa retraite en 2022. il aura 63 ans. Oui, ce qui est vrai, mais il va tomber. Mais nous avons verset prophète. Tout ça, c'est des spéculations. Wad mo le programme bi mu 2022 bu ma après ñom Macky ak ñom Karim ak Pape Diop ak affaire euh jël affaire bi continuer lii moo doon programme Wade mais lan moo yàq programme bi Wade avant mu ñuy tàggoo 2004 ànd na ak man Matam wax ngeen dégg mu ne man ak Idrissa peeru ciseau lañu bu ñu tàggalikoo dootul dagg jusqu'en 2004 vous n'avez pas entendu parler de Karim Wan. nulle part de 2000 à 2004 il était là hein. mais il faisait la queue devant mon bureau comme tout le monde Dior Sanya, est là et, et, euh, faisait la queue un jour, il a forcé le, euh, barrage. Euh, Dior n'a pas pu le retenir. Il est rentré dans mon bureau, j'étais en pleine audience. Je l'ai foutu à la porte. Je ne nga def mais à partir de 2004 il est devenu le ministre de l'eau, du ciel, de la terre, de machin. Mais je lui avais dit, si tu joues avec les outils de ton père, tu seras crucifié. Il est où maintenant Il est crucifié au Qatar. Bon, c'est vrai que c'est une crucifixion de luxe, parce qu'il vit bien dans les <laughs> hôtels au Qatar. Mais tant mieux pour lui, mais bon voilà donc mandat bi fofu le jógee Macky Sall ñew renforcer ko mais lu mu gëm la Niko ko Ablaye Wade gëmee woon bi mu koy def après Karim ñew ak Viviane jaxase bopp bi mu génn ci nan ma waxoon waxet ma ko c'est une catastrophe mais bima ko koy wax ci bureau politique du PDS la ko ko waxee. ma ne ko gis nga ñiy jóg ñépp di la tàccu ni naan la wéy tu es notre gis nga boo daanu doo ci gis kenn xaaral ba daanu na mais man nga defee ni seen tàccu yi dina ma impressionné ba li ma la waxoon ci sa biir bureau duma la ko wax fii amoo boobu daraja ma ne ko tu n'as pas droit mais erreur bi ma def rek dem place de l'indépendance au lieu ma def ni def dem ci sénégalais campagne moo tax ren moom bu amaatoon Carcassonne du ma Serigne Got gott rek non encore une fois, Macky Sall est le président de la République dafa am lu ko war at'amahum min joub wa amanahum min khawf. bu ci nekkee du tal débat wu troisième mandat mais ala kulli alin bala nek candidat troisième mandat au plus tard bu waré wuti parrainage danako wax

ñëw di wëlis troisième mandat mais xaar leen bala ngeen a toj gémmiñam ngeen xaar ba mu wëlis man mi ngeen enterré woon maay wëlis pour ngeen xam ni maa ngi fi mais moom wëlisam jotagul bu jotee bu wëlisee bu wëlisee waaw kuy toj gémmiñ soo ko toj gémmiñ bopp dana ñëw bennoo bokk yaakaar wëliis ko fa gu ko fa te maa nga fa maa ngi wëliis alors donc loolu laay wax ci troisième mandat euh, oui à Thiès mais Thiès combien de fois j'ai été maire ici Hein? Depuis 2002 jusqu'en 2022. 20 ans ininterrompus. xam nga Macky Sall dafa wax yi man Macky trois ans rek laa def traversée du désert 2009 2012 yàlla a ma ma le pouvoir Idriss, Seck 16 ans de traversée du désert la 2004 ba 2012, il vingt euh, ci pouvoir mais il xel quand même vous n'êtes pas des idiots lui c'est un homme politique et c'est un homme d'État ça n'a rien à voir avec vous vous vous êtes des fonctionnaires que, j'ai nommé ministres. Et puisque vous êtes devenu ministre, vous, vous avez des bases politiques. Mais si vous cessez d'être ministre demain, vous n'aurez rien. Tandis que mon, fait que ko Thiès Ablaye Wad ñëw geusam geusam geusam mu yanu ba bir bi wex ndank la ko tegg la dafa bari teggin gor gi mom ndank la koy tegg Macky Sall ma jaar ak mom fofu ba ma demee ba sama xel dal ci ne samay ma kailen remplacer ma campagne à côté de vous je veux que vous deveniez de vrais leaders mais ils ont commencé dans 5 ans 10 ans euh, ils gagneront comme j'ai gagné j'ai pas gagné du premier coup hein j'ai travaillé travaillé beaucoup travaillé Toujours travailler, encore travailler. Et j'ai gagné. Donc les soient mon, na ci sa dama ci à New York ma jël sama sac, di dem di jëli sama valise mu dab ma mu ne ma duma la famille je me contenterai de te dire que tu es notre leader et notre fierté. Nous ne comprenons pas parfois les décisions que vous prenez. Mais à chaque fois que vous nous dites quelque chose, nous savons que c'est la vérité. S'il vous plaît, Moudjel Bagajam Tech, il est patron d'une très grande entreprise. Il a des millions de dollars dans son compte on ne vous demande rien mais s'il vous plaît ne ratez plus aucune occasion de nous donner l'occasion de vous dire que nous vous aimons à travers notre bulletin de vote. Ne nous laissez plus orphelins de nos choix. C'est toi notre choix. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, si ton bulletin est là, nous sommes heureux de le prendre et de le mettre dans l'urne. Mais si le bulletin n'est pas là, on prend comme ça, par dépit. Mais c'est ton bulletin que nous voulons voir. la politique euh, agricole... Non, la politique... La politique agricole est déficitaire dans un certain nombre de domaines. Je crois d'abord que les statistiques qui nous sont fournies ne sont pas bonnes. Et il faudra les améliorer. Mais la politique de l'élevage, ce sont les éleveurs eux-mêmes qui me le disent. Hein. Ça marche très bien ça marche très bien pitax yeeg yëpp ay jag ginaar yeeg xar yeeg bëy yeeg euh, korñaaña yeeg yëpp rek ngi dox mais nak aliment amul te aliment yi cher na parce que agriculture moo war fournir aliments. mais doyul donc li ñuy wax te loolu politique agricole bi de sénégal man mako bind de man ma tasse de péréquation wax autosuffisance en riz nañ dem où nous avons plus de 240 hectares 240 000 240 hectares yo à l'époque 40 000 rek lañ et on ne produisait que sur les 20 000 mais si on traverse les léegi des dem Mauritanie nga gis ne j'ai reçu hier euh, des femmes euh, euh, à Sali qui participaient à un séminaire de l'UNICEF pour la promotion de l'action des femmes rurales il y avait notre Sornambol, là, du Wallo, qui a une liserie, qui, a, qui fait de, de l'agriculture euh, au niveau du lac de Diamant. Mais c'est possible. Et à l'époque, j'avais dit, on tue la caisse de péréquation puisqu'ils avaient un déficit de 15 milliards l'an. Mais en réalité, c'était une sorte de caisse noire du Parti socialiste. Et quand j'ai déposé mon rapport, c'était Abdourahman Sow, je crois, qui était directeur. Ils ont appelé Mayoro, ils lui ont dit Mais yo, sa dof 15 milliards de déficit. Ça c'est ce que Baba a écrit dans son livre. Donc politique agricole je sais que suis en puisque Indina, avant ko avant may que ministre du commerce l'autre question c'était quoi à quand le grand Mané, il faut faire des micros. Non, Mané, donne-lui et après tu me mets un Kleenex autour. Donne-lui. nii lañ doon euh, di am ci yow nekk ñaari suñu borom fattaaxal ñu yor fattaax ñu dina ko fa wa man yu'til hikmata faqad utiya khayran kathiran gannaaw loolu maa ngi tudd Mouhamed Wade je suis vecteur de publication de la Senctv.info qui existe depuis 2020 dans l'internet et Thiessénégal.com qui existe depuis 2018 dans l'internet dama am ñetti question question yu simple la c'est vrai que expliqué nga ko ci débat bi hein. bu euh, ma sañoon mënuma laa exiger nga defal simple mais vous ma sañoon mu nekk ay réponses yu simple nous sommes moins de 10 mois euh, pour le 24 février 2024 est-ce qu'il y candidat un candidat benn euh, deuxième question Le président Macky Sall nga concerné moi aussi dara lu leer yow. ñëw en personne parce que président Macky Sall am na droit def troisième candidature yow sa sa collègue de bilan ñëw en personne sans nga bañ a xaar mu ñëw si wala mu bañ si jàpp troisième question président Macky Sall dara woo nga ànd ak moom liggéey ak moom tey bu fekkente ne tey dañ ko defal bilan ak jéego yi mu def Sénégal par rapport projet yi nga xamante def na ko fi est-ce que yow euh, la euh, wala noo ko jàngatee. jërëjëf. Donc, vous avez posé trois questions simples. Vous avez droit à trois réponses simples. Est-ce que Idriss Seck sera candidat à l'élection présidentielle de 2024 Est-ce que réponse bi maintenant question ni ma ko sentir vous koy def question la est-ce que yow mi une question Manga élection présidentielle Sénégal EXI, Idrissa di dund dese bakkan am ak du ah xalaatoo de est-ce que xam nga kenn ku mën khalat xalaat loolu kenn rek ku ko mën khalat? Wa waaw léegi nag réponse bi gën Moi gàtt mooy waaw bi deuxième question deuxième question ndax Macky Sall am na droit xam nga lu société am société li tax mu mën am mooy dañuy am kuréel goo xam ni lu mu dogal nga ànd ca nga bañ caa ànd da nga cay tënku bis bu ne nga dem États-Unis cour suprême ba génn décision boo xam ñu bari dañ naan lii ay ball poy de la ay ay yu ñàkk yu amul benn teguwaay la wante doo gis benn américain bu ca dul senegal Sénégal benn kuréel mooy wax ku sañ ku sañu la bokk mooy conseil constitutionnel mais li boroom xam-xam yi wax te muy ay boroom xam-xam yoo xam ni seen xam-xam du xam-xamu caaxaan ku le professeur Serigne Diop lu la wax ci constitution takkal téere fii ba Koulikoro fii ba Casablanca fii Johannesburg ku fi jàngale droit constitutionnel constitutionnels, nga ko qu'il bis nga gàtt mu Serigne Diop wala boog sëriñ Jóob nee ma amul droit te amul benn porox ndool bu mu jaar pour am droit wax na ma ko loolu leer simple troisième question nga ne bilan bi bilan bi xam nga fii laa toog ma ne leen euh, man m'a pas la vision de Macky ne dépasse pas Diamniadio waaw légui buma rombé Diamniadio rombu Fatick rombu Kaolack traversé pont Gambie te dans ci vision bi dépasse na Diamniadio du question c'est la vérité et bientôt je pourrais faire la même chose vers le nord traverser Rosso te duma fa fanaan samay légumes di neub wala samay mango yi Casamance di bilan la mais bilan bi qui ci gën neex moy ndox mi ndox mi chasseurs libanais métier ma ak ñoom réserve animalière de Bandia ñuy waxtaan xamuñu man may kan ñu ne ñoom yag nañu reub ci all bi mais ren bi ñuy reub li ñu fi gis ci ay forage ak ay tëli ak ay piste ak ay espace aménagé musuñu ko gis ci Sénégal électrification li ñu ci gis musuñu ko gis bi fi wàdd nekkee électricité bi Senelec xuy kamaj lañ ko tudde woon parce que man maa ko tudde woon xuy kamaj bon mais léegi on a quand même assez de mégawatts donc le bilan il est excellent du point de vue matériel du point de vue immatériel il peut être amélioré sur l'indépendance de la justice, sur la transparence des rapports de certains corps de contrôle, sur l'implication de la famille dans la gestion des affaires de l'État. Voilà. Mais globalement, c'est un excellent bilan. Mais je peux faire mieux. Euh, les concernés Yankoba personne au monde ne doute de sa loyauté à mes côtés. wante wante léeg-léeg day bëgg a dugg samay caaya wax lu ma ko caaye mag nag boo ca duggee a am lu la ca fekk xam nga li mu def bu ko Déthié Fall defoon mooy toog fii Déthié Fall moom rekk laa waxoon lii xew ci bi ñu waxtaanee ak Macky ba pare mais ma ne ko yow duma la dugal ci gouvernement puisque yore nga ñaari poste yoo xam ni bu ma la fa jëlee yóbbu la ci gouvernement bi réew mi da koy ñàkk te poste bu nekk faj na soxla député nga assemblée nationale ba nuppi nekk directeur technique waroon a nekk d'ailleurs directeur général bu NMA puisque xam-xamam may na ko mu ne ma d'accord ñibbi këram am lu changé

sa ndam rek le bëgg man bu doon présidence de la république dañ koy jënd di joxe wala nga lijjanti ko nday pend da koy lijjanti jox ma c'est normal qu'elle soit de ton côté mais ne l'écoute pas sur ce sujet-là donne-lui raison mais toi ne dis plus rien parce que il ne faut jamais parler sous l'emprise de la passion ou de la colère Nous sommes ci lolu mu dem assemblée nationale alors que nous avons bul wax mu wax premier vice-président du parti il était vice-président exclusif le seul le seul vice-président du parti donc bu

na delluwaat assemblée nationale wax ne lii mu waxoon njuumte la affaire bi jeex mais xam ngeen euh, Iblis dafa bari doole Iblis dafa dem seeti yonent yàlla Muusa ne ko yow nee nañu yow yaa mën a wax ak yàlla man nak ba ma xuloog yàlla ba legi yonenti fi jaar bari nañu ken mësta dox digënté bi pour defare té te ngi bëgg dé yow dox ci bok wax ci Iblis ne ko ah wax Musa ya-, euh, euh, Moussa ne ko ah yow day wax deug yalla comme bëgg nga tuub nak mom wax deug yalla dana ci defi jéego Moussa dem séti yalla ne ko ah sa non sa sa bi di Iblis te defoon njuumte lu reuy lolu ñaan na ma ma dox ci diggante bi yàlla ne ko mais amul problème moom dama ko waxoon na sujootal aadama mu bañ ma dàq ko lii rekk la ne ko aadama nga fële ñu suul na fa dem ca bàmmeel ba rek yaxya sax xam naa ni newatu fa mais bu ko sujootalee rek ñu juboo Moussa kontaan ne réussir na mission bi waaxu waaxu mu dëgër ñëw ci iblis ne ko affaire bi sotti na mu ne ko ah mu ne ko sotti na borom bi daal nee na la mu la santoon nga bañ rek ngeen jote jotewu leen leneen léegi boo delloo ca bàmmeel ba nga sujjóot rek affaire bi jeex iblis ne ko eh mais yow yow yow yow yow yow yow li nga may wax lu yow kii ba muy bees donc c'est tout Yankhoba je l'ai sanctionné il a dit il considère que j'ai fauté j'accepte la sanction c'est ça le premier message qu'il m'a écrit et quand il m'a envoyé ce message. J'ai euh, euh, on en a parlé. Je lui ai dit la faute porte seulement sur la politique. Elle n'a rien à voir avec le gouvernement. Au contraire, au gouvernement, il nous a ramené des coupes d'Afrique. Donc, je ne vais pas le sanctionner dans son travail gouvernemental mais je le sanctionne pour que les gens comprennent qu'il n'y a qu'une seule autorité dans le parti qui a le pouvoir de nommer aux emplois civils. On n'a pas encore militaire, peut-être après 2024. Il faut que je m'entraîne, quoi. Donc je l'ai enlevé. Mais au niveau du gouvernement, il fait un excellent travail, comme Ali Saleh Pourquoi voulez-vous que je le sanctionne Et d'ailleurs, les Tchessois, là, ce, que je leur ai reproché, les militants du parti, hein, quand j'ai mis en Diatara, des, des, gens se sont battus, et hein, ah, Diatara mi ñu imposer lu tax mu

mais dégguñu lolo, li ñu dégg Idrissa a été hué dans son bureau de vote il a perdu il a ceci ñu ñëw daw si seet si ma ñun ñoo pour démontrer que Diattara mënalu la dara ñun ñoo am pouvoir ma ne leen mais li ngeen doon bëgg démontrer rien ngeen ma femme. parce que mooy mooy mooy ndaw sa rek ndaw sa ak wujjam ndaw si dafa nekk ñaareel nekk xale awo bi ñëw ne ko sama nijaay moom li mu gën a bëgg mooy buy lekk cere nga koy dóor tàpparka naan ko wannal waaye wannal comme xale la xamu ci dara mu yore tàpparka bi ñëw tegal góor gi cere yi Gorgi gi di leg muté di dóor rek nan ko wonal waaye <laughs> vous m'avez fait la même chose vous luttez contre Jaffara et vous tapez sur moi et c'est vous qui perdez puisque man bima len di jox on avait les trois communes on avait la ville on avait le département vous n'êtes plus rien je reprends moi-même la coordination et je vais voir si les Thiessois vont m'accompagner ou pas c'est très simple si je suis candidat on va voir les résultats c'est tout si les Tchessois me disent on n'est plus avec toi j'arrête la politique je l'avais dit mais ils ne me l'ont pas encore dit a ah, waaw bu ngeen ma ko waxee daal moom ma ne abal leen seen affaire